maanaam man tey maa ngi wax lu dawoon démb ci série bi maanaam mooy ci oh, brigade de boobu noonu démb ci ba ma ko seetaanee bon ma gis ci loo xam ne tamit eh, lu yéeme am tamit loo xam ne tamit lu garaaw ci surtout ci Jules César maanaam ñu ne nit ki moom ndeysaan du bañ ma ko kii ko defar ci àdduna maanaam moom wane na ngor dëgg dëgg dëgg ndaxte gars yi ñoo nañ ñoo nañ ko nañ dem moom tamit dafa blank bañ mu ne moom daal du dem il faut mu xam laalaal lan rey ki nga xam ne moo di patron am ci biir loolu maa ngi waxaa tamit ci li nga xam ne maanaam moo di Abdel Abdel moom du dara ndax moom moo dem taraay ba pare en plus euh, nekk foofu tamit di wone ay kanamu innocent yooyu ek fekkee du innocent moom moo def lépp waaw moom moo def lépp waaw di wane ne daal maanaam moom defu dara te moom moo def lépp nag voilà donc na ñu ngi leen di nuyu ci loolu tamit bu baax di leen jégalu tamit asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. waaw Lu Xew TV man nag euh, lu ma bëggoon laaj tuuti si ka Jules César quoi parce que Jules César gis naa benn instant mooy fu mu doon dafa ak ak John mooy foofu la njëkk a génne après foofu John da jox benn benn yëre après mu mu sol après mu am lu mu dóor mu am mu dóor kii John après mu daal di daal di génn après kii ñëw quoi wala xaritam bi ñëw après ñu yëg si oto bi ñu dem quoi waaw après ma gis benn instant tamit. juste encore nekk ci prison nekk nekk ak euh, ak kii ak buur ak buur après bu ñu bu ñu génnee mu nekk mu nekk beneen beneen génn quoi léegi man ña ñaari génn ñaari génn juste prison gis naa mu génn ñaari yoon wante gisuma moom fu mu duggee ñaari yoon quoi loolu moom moo xaw a jaaxal tuuti. ça va na nga def yaa ngi ciy baax ça va nekk foofu am na yaa ngi baax xam naa Aida rôle boobu moo moom moo si làqate Aida bi mooy fi papam bi yooyu day bari daa bari Sénégal yooyu ci yeet si la bokk parents yi lan gën a mën a yee parents yi ñoo xam ne seexluñ seen doom seexluñ seen daal Sénégal dem na boo xam ne si kenn xamatul leneen xanaa ab daa daw tay ah. mën naa épisode boobu lu ma tuuse lu ma neex la mhm. moom la ci gën neex surtout ñoom ayda seen leer bi dafa neex ndax jigéen dafa am valeur Sénégal waaye waa Sénégal am ñoo xam si joxuñu valeur jigéen waaw seen seen euh, neex na trop moom macha allah benn message tamit bu may jàllale peut-être. Euh, whatsapp bi xaw ma waa Meurthe ñi ngi am audio normal loolu desin ma leer peut-être euh, dama ko yaakaar rek moom ma lay wax ne maanaam film bi tamit réussir na neex na jàll na nit ñëpp ñu ngi koy seetaan di leen ñaan rek li dal yeneen série yi mu bañ leen a dal waaw ngeen am ay saison saison a dëgg yàlla ay saison saison maa ngi koy xaar ci yéen tam naa ci yaakaar waaw yeneen yeneen film yi fi jaar nag tout le temps ñoom tamit. mooy loolu dañuy jouer dana neex mais fin la am waaw maanaam fin bi du baax ndax tout le temps dañu koy jouer dañuy dem ba comme ni ñuy def nii di ray di ray di ray di ray am ay acteurs de yoo xam ne tey bu ñuy di génn si film baaxul quoi waaw daa yoo xam ne bu ñuy teel di génn si film baaxul waaw comme si que li daloon suma juumul euh, euh, euh, ba ban filmati la. ñoom saa neex seen film bi laay wax tur bi wiri wiri waaw boo xoolee ñoom seen film bi li ko mu jot tax mu suux mooy ray ray yu bëri yi quoi waaw ray daa moom acteur de film yoo xam ne moom waruñu waruñu ñàkk ci film waruñu ñàkk ci film ndax tout le temps ñoom ñooy dooleel gars yi ñoo lañ motali am na ñoo xam ne ñooy tax ñoo lañ seetaan. ñoom ba ñu leen rey bëri na mais ban laalee seen acteur bi mag muy seexu naan loolu indi leen problème yu bëree bëree bëri bëri sànq seen film mënatut a dem waaw ah, di wax ñu fay ci côté boobu noonu waaw ay jàmbaar ngeen ay liggéeykat lan mais film série yi nii nii nii tout le temps comme yii nii moom ay rey mën na ci am mais ah, dañuy xool fi ñu coxati bu baax a baax côté yi ñuy rey waaw ah, période bii nii ku si mel ne Jules César kooku ku war a dund la. ku war a dund la ku war a mu ne ndax fi mu ne nii ñu bëree bëree bëri boo xoolee daloon seexu naa ci wir wir moom moo leen dal foofu noonu quoi waaw ah, boo xoolee fi mu toll tey boo ko rëccoon rek moom moom ba lu ko wala moom lu wala mu dee ci bi rek moo loolu day am bunt yu bëri yoo xam ni sama yaakaar rek laay waxee nag mën na fët mën na fët ndax daa am acteur film bi yoo xam ne nañ ci bàyyi nañ ci bàyyi wala bokk dañoo war a dee si fin film ba comme ni koy tubaab yi di faral defee waaw. chef de bande dëgg moom day dee ci fin ba xeex cooki fin ba daal ci la war a dee mais bu teelee dee rek mooy loolu noonu mais série bi moom macha allah kontaan nañ ci ñi ci bëggee acteurs yi li seen rôle ñuy joué mën nañ ko kontaan barki Seydina Mohamed dama kontaan trop duma ko tardé chaque chaque jeudi wala dimanche duma ko tardé billaay su ma ko tardé bu dee dama lu ma impé sax ba ma ko fat fat damay dugg YouTube ma téléchargé ko billaay seen yi seen lépp man du ma bàyyi dara lépp laay seetaan duma sax seetaan film bi dong ñoom ku ci am fu la invité wala seen kii yëpp duma koy seetaan dama leen ñu bëggee di leen safoo macha allah. waaw moo wax tuuti si épisode 38 bi ça a été bien passé nee trop te am na saas uti defati nañ ñombe laa ko mën a waxatee parce que si ñombe lañ dëkk wallahi chaque jour ñu ngi bégloo waa àdduna di leen jàngal yu bari bari di leen teg si yoon macha allah. ñu doxalee noonu la nu mu kasum vraiment lu doxalee ci film bi baax na daal comme ni ko nit ñi di waxee rek ñëpp suñu meloon ni moom àdduna bi macha allah jàmm rek fi bari parce que lii mooy dëgg ko deful yoon moom dañ laa war a teg si yoon waaw loolu moom mooy dëgg te mooy la am waaw Zil moom wax dëgg si yàlla keroog avant may avant ñu xam ko waray saan dama ne gaay naan ma waaw Gilles moo ko aimé non Gilles doo raysaan Gilles boo seetee si film bi nga xam ne Gilles euh, du raysaan quoi parce que dëgg la Zane teg na ko lu nekk mais moom xam na fu mu jaar ak Zane daal <laughs> lu bari xam na ko si moo tax dëgg la te am te ku am fulla la si li muy see tamit ku mën a doxarolam la kaxaama billaay vraiment man dama lay. félicité bu baax a baax di leen encouragé rek dana fi nga jàpp foofu la wallaahi ñu ngi kii bu baax yal na leen yàlla gën a jàppale rek taxaw leen macha allah ñu kontaan bu baax si ñoom billaay. salaamaaleykum waa Lu Xew TV nuyu naa leen bu baax a baax di leen ziar waa man eh, ci mës laa bëggoon wax brigade des femmes. Euh, voilà donc euh, dernier épisode bi nii euh, gis nañ ne Jeanne agressé nañ ko xaw ma day dee xaw ma du dee mais man daal dama yaakaar ni Abdel la Abdel laa ko yaakaar parce que Abdel ñëpp xam nañ ne Abdel amul xaalis Jeanne mo am xaalis Jeanne moo ko yoroon et tout. te Jeanne moo doon diriger et tout te man Abdel depuis le début wóoluma ko Abdel man xam naa ne li muy wone ak li mu doon dëgg dëgg dëgg du benn Abdel du nekk euh, le gentil petit mari nii rek comme rek di obéir ay ordre Jeanne non non yaakaaruma loolu vraiment man dama yaakaar ne Abdel moo ko moo ko moo ko reylu xaw ma nag day dee xaw ma du dee ok ñu ngi leen di remercier. asalaamaaleykum waaw Lu-Xew TV nuyu nañ ñu ngi leen di sant ci liggéey bu rafet bi macha allah ak kenn ku ne di wax xalaatam lu ko metti ak lu ko metti wul wallahi mais man daal vraiment vraiment film bi moom na fu neex yem mais daal Jules César daal moom niñ koy kiiwe dafa yomb de trop daal dafa yomb. waaw Jules César waaw ay rëccam ak yooyu daal ak ni muy génnee dafa yomb de trop waaw dafa yomb daal vraiment te Jeanne daal moom vraiment waru woon a noonu daal waaw waru woon a noonu loolu moom lu ñu metti la vraiment waaw. salaamaaleykum waa Lu Xew TV maa ngi leen di leen ziara mbaa yéen nga am jàmm di rafetlu bu baax a seen liggéey yi nga xam ne ne yëpp ñoo leen di déglu. di leen suivre ñi leen suivre ñëpp daal maa ngi leen di ziar di leen ñaanal jàmm loolu dama bëggoon commentaire quoi ci Serigne Mars Mars ay euh, la boo xam ne man dama koy suivre ko euh, épisode un ba tey maa koy suivre bu baax a baax mais li ñuy am gis naa ni lépp am na ba kooku noonu violé woon doomam boobu ay daa xawma loolu noonu noonu la am noonu la amee te am na ñu koy dund am na ñuy dund tamit lu gën a métti loolu te seeni waajur ñoo leen koy teg mu doon loo xam ne ki ni ne duñ ko mën a nettali kenn wala mu doon loo xam ne ki ne duñ ko mën a partager ak kenn daal duñ ko mën a wax ak kenn parce que loolu dafa metti loolu ñu ci noonu lu am la kantaan euh, yi nga xam ne nii ne nag moom lañ jàppoon si jigéen yi ñu rëcc xama ñëw fas yéene taxawal seen brigade pour défendre seen bopp même loolu noonu Sénégalais yi am na si góor yoo xam ne nii ne dañoo tegul jigéen seen place ba nga xam ne nii ne lu leen neex lañ leen di def affaire yooyu noonu ñoom loolu lañ jug pour défendre ko mais loolu tamit lu am la. lu am solo la série bi daal boo xoolee ni ma ko mën a waxee li ñuy li ñuy joué boo xool lépp dafa nekk réalité lépp dafa am lu am li ñuy joué mu doon lu série bu neex boo xam ne nekk nii ne man moom nii ma constaté wu nii maa ngi koy doog a euh, def ci série vraiment doon na série bu neex boo xam nekk nii ne daal ñu ngi ciy bàyyi xel bu baax a baax leen ñaanal seen liggéey gën a jëm si kanam quoi. je veux être plus explicite maanaam xaritam bi man dama xamul exactement turam bi xaw ma nu tudd léegi kook moo war a jege tata umu kalsum expliqué moom tamit kaawam ni ko moom elle a vécu la même chose kayda parce que moom dafa doon dund loolu ak ak tontonam loolu la wax ak nijaayam loolu la wax léegi nag comme ñoom loolu moo taxoon ñu mel ni kuñ bokkatuñ ci dund bi daal genre topp beneen dund banditisme yooyu noonu genre léegi nag comme Aïda dafa yàlla dafa def mu dese de moom mu jéggi tata Umu Kalsum mu xamante ne ci wàllum fondation bi lay liggéey jéggi ko expliqué ko kaa bi genre après liggéey ak moom pour jéem a bàyyi habitude bee genre arrêté rôle boobu daal léegi mu nekk nit ku baax yee nit ñi. sensibiliser la la la jeunesse ak yaay tamit ñu bàyyi xel bu baax ci seen doom loolu après ñu bàyyi xel bu baax ci mami aussi xaraku ay dabi comme sœur moo ko doon protéger ba décédé ñu bàyyi ci ñu bàyyi ci moom xel jàppale ko waaw ak xaritu ay dabi daal bëggoon naa mu bàyyi euh, jikko boobu noonu daal di def nit ku baax man loolu laa ci gis quoi. maaleykum wa tv maa ngi nuyu bu baax juyum jiar bu wér dëgg la dëgg la thème bi am na solo bu baax a ba am yàlla yàlla yaatal ko bu baax a ay télé télé dëgg la dëgg la ci moo ko solo solo a baax gaa bu wax kaa yi mel ni bëri na Sénégal papa yi di violer seen doom loolu dañ ko fi war a éviter mu jëlee ko fi ndax loolu moom doy na waa trop trop trop trop affaire bi bizarre daal kenn xamul daal daal. yi damay gis ni ay moins dix huit de douze ans waaye loolu fi fii Sénégal moom du ko fi xale yi ndaw koy seetaan seen comportement cër yi comme solo bi ni sol am na épisode yoo xam du seen séer sax beneen séer yi la. boo xam ne ñu ngi wane keroog koy seetaane suñu wàkk dama rus ba fi ma toog mënuma si muy benn série la woon ñu affaire yu doy waar te loolu série Sénégal yi war na ñoom moytu idole moom loolu gisuma ko si te suma te moo tax benn série bu ma neex la daal neex daal yi daal mu ëpp ne di yeneen yi te kii nag benn seen benn fans la bu dëkk Bambey ñaa ko Moodu waaw teg si tey jii li ngi seen bande annonce si lañ gisee seen numéro bi jël ko enregistré ko benn heure bi waaw tey de ñun bu ñu xool ñu lan mun loo xam ne mooy benn ñu lan mooñ si loo xam ne daal lan lañ mën a conseil di bëgg tey ji buñ ko seen yokkit mu gën ñoon ne muy si wàllu benn côté si colin gi quoi ak yenn yoo xam ne pour xale yi koy seetaan ko beneen ni loo xam ne tey man pas sax seen bos bi nii bari gisuma ko si gaa ndax seen yu bari seetaan naa ko si passé waaw ci yenn série yi laa ko gis comme ñuy comportement yenn colin ak di wane yenn yenn yoo xam ne waruñu ah, ko wane daal ci biir pour xale yi di ko gis affaire yooyu te. salaamaaleykum yéen waa Lu Xew TV maa leen nuyu baax leen ziare bon en fait que man seen numéro si YouTube bi laa ko jëlee am benn série bu ma doon suivre ñu koy wax Mœurs. bon muy série bu am sens lool vraiment ma leen di encouragé bu baax di leen ñaanal ñu àggale si jàmm ak salaam waaw série bu am solo man depuis ma commencé ba léegi yàgg naa ko siifal euh, siifal ma ci télé nag si internet bi rek laa koy seetaan si YouTube bi mais am na solo trop waaw maa leen bu baax bon di ñëw si commentaire rek bu fekkee ne affaire de brigade bi la man su ma soñoon lañ koy jox quoi. bu fekkee mën ko jox marle tamit ñu jox ko Collé mais man moom marle marle moom laa moom laa jox favori ko parce que bu ñu xoolee groupe bi moom moo ci gën a intelligent quoi ci rôle bi mu waaw moom laa gis mu nekk ci ko xam moo ci gën a intelligent waaw ci wàllum euh, ci lépp daal man moom laa gis daal euh, bu fekkee ne tamit euh, deuxième point bi muy. Crayzan waaw kooku Jules César yaakaar man parce que boo gisee zan bi mu ubbee bunt bi dafa dafa arriéraat daw dugg si salle de bi kon dèjà xam na xam na ko ku nekk ci xam na ko dugg si quoi waaw fekkoon ne buuru buuru bi la kon du daw kon dina ko laaj waaw man Jules César laa jàpp ne moo koy zan quoi. asalaamaaleykum wàllu xew tv maa ngi leen di nuyu di leen bëggee waa di kontaan rek ci série ndax série moom nii la te théâtre dañ na yeete bu demee rek ba amatul yeete jaru ñu naan théâtre euh, série bi moom kontaan nañ ci lool sax am nañ ci mbégte ndax doon na loo xamante ne luy jàppale ñun jigéen ñi la ak loo xamante ne ñu ngi koy dëj suñu biir sëy wala ñu ngi koy dëj suñu biir kër yi wala ñu ngi koy doj ci mbedd loolu yëpp séri bi taxaw na tey ah di ñu ci jàppale bu baax lépp loo xamante ni amoon na nëpp nëpp tey jii nii séri bi taxaw na dindi nëpp nëpp boobu yépp di def dëgg te dëgg mooy njëkkee te dëgg mooy mujjee te ñoom ñu ngi jàngale dëgg lu mu metti metti metti metti metti lu mu neex neex neex ñu ngi ñu ngi wane dëgg daal mooy lépp. salaamaaleykum. wàllu xew TV ñu ngi leen di nuyu di béggee di jaare ñëpp ñi nga xam ne ñoow ñooy béggee lu xew bi waaw di wax ne affaire bi am na solo daal kenn ku ne mën na see gis boppam ñun bu dee si côté émission 37 bi buy am tey euh, si côté ana bi ko chanson bi daa mel ne chanson bi moo ko seet si woon mi ngi naan ko dafa mel ne saafara bu jur jàng la quoi man dafa comprendre. ñoom élément bi daa am ñun ci jàppaat wala moom dem gi kidnappé bi ñu ko kidnappé woon moom moo tax muy wax ndaxte mm, moom dane saafara bu jur jàngoro te instant bii nii ci këram la nekk di ko di ko wax fi la ko sans soam bi fekk man dama comprendre daa am ñun jàppaat ci élément yi wala daal bu fekkee am na benn commentaire bu mu déglu kooku daal ne Ilimane wërta wërta wërta wërta wërta yor kii bi brigade bi dana war a xool ki nga xam ne moom moo ëpp xam-xam mooy euh, bu dee nga xam ne moo ëpp xam-xam mooy xam ne moom moo toog bu jaaxle moom moo deen guidé mais boo yorul formation bi yaakaar na mënoo giide kenn te am na affaire brigade yii nii yaakaar naa boo amul boo amul boo amul boo soo amul formation bi yi ci war dëgg-dëgg doo ko si mën a def man foofu laa gisee beneen bi mooy ah, jabari monsieur le maire yi fi ñu doon waxtaanee mu naan ko yow yow lii moo wax ko monsieur le maire nga si nga si nga si nga si am lay métti quoi te sa ja sa jarbaat dañ ko violé kon dèjà da ngay xam ne am na loo xam ne famille ñoom ñoo koy nëbbanti seen biir ndax kooku buñ ko bàyyi woon rek jabaru monsieur le maire bi affaire bu du siiw kon ba ñuy jàpp pas avec quoi kon dañ koy nës nësal mu wàcc mais tamit foofu noonu ci côté ayda bi mooy que sa doom bu ko yar yarin bul nu mu la neex lu ko neex sol lu ko neex woo doo fu ko neex toog. boo nekkee sa néeg mi ngi fii ñëw di sol solin bu bon goo xam ne kenn xamul solinu lan la kon yooyu sa doom war nga koy mën a tere daal col ko gu bon baaxul bu ko bu ko xeewul woon ci biir kër gi tamit mën na génn mu xeew ko ci mbedd bi kon sa doom war nga lijjanti lu muy sol ak lu mu du sol beneen bi mooy ci côté Jeanne ak Jules César Jules Dane Jeanne moom moo ko yor bi mu nekkee xale bu léegi moom moo ko yor Jeanne bin ko Jeanne bin ko jàppee bin ko yóbboo police di ko enquête dane man Jules man maa ko yor waaye yorewu ko rey mais yarin bi mu ko yaree moo tax mooy rey ndax am na fidi ndax dañ ne yar jikko bu mu def ci yow rek mooy mooy nekk ci yow. ndax Jean boo xoolee bandi la Jules ñemewul woon Jean sax toxi doona wu mu def Jean Jean toxi doona wu lay yebal pour mu mën ko ce génne otoom bi mu mbëkkee nuur Jules la jox oto bi pour mu mën koo génne pour mu mën cee set moom la yoon ci hôpital ba pour mu xool ko ba xam mi ngi dund wala dundul tey Jules César noonu la mën a def pour Jeanne mucc si mooy rey ko kon nit ki soo koy défendre da ngay xam ci li nga koy défendre mooy que am na ñoo xam ne yar bi ñu yar yar bi ñu yar baaxul Jeanne yar bi mu yar Jules César baaxul. ndax moom moo ko may fit woowu muy tax muy def loolu lépp wala gars yi foofu laa am comme commentaire. asalaamaaleykum wa rahmatulah lu xew TV ziar naa leen bu baax a baax di nag man nag si théâtre boobu laa wax moof la brigade boobu noonu laay wax boobu moom mooy sama théâtre man si théâtre yëpp man boobu la mooy sama si boobu laay seetaan waaw maa ngi leen di béggee bu baax a baax a baax surtout Ana. ak waa Mor ñëpp moom dama bëgg rek te yàlla tax bañ commencé seen épisode bi un ba léegi wax dëgg yàlla maa ngi leen di seetaan amuma télé waaye connexion ñoo may tax may jënd connexion orange bu minute bi ma koy télécharger rek après bu am ra ma télécharger ko seetaan waaw lu xew TV maa ngi seetaan seen épisode dix bi gaa ngi si commentaire waaw koy seetaan gaa ngi si commentaire nag. waaw benn maa ngi dégg benn jigéen mu ne dee yi bari na ma ne ko wax nga dëgg de dee yi mu ngi bëgg bari sax de xam nuur dee na fii ak ayda ak saan bu dee day bëgg bëri de waaw surtout ayda bi man dee am bi noonu la ma métti waaw dama ko faraloon dëgg dëgg waaw ah. ak sil César léeg-léeg damay sil César dama koy bañ bañ loo xamante ni waaye <laughs> damay xam ne théâtre bi moo laaj waaw maa ngi siyaare ñëpp daal waaw. yéen waa yéen waa Lu Xew TV maa ngi leen di nuyu di leen bëgg di leen siyaar waaye yéen am jàmm rek dañ leen wax ne li ma bëgg a waxal la ci li xew xew-xew jamono ji la di eh, Zery Meuve Sel César eh, la di li dafa doon am. c'est que fii Touba ñu ngi fi wax rek lu yàggut lu mel noonu fii Touba démb rek dañ fekk ñaari xale ci seen i kii ñu ray leen ci seen i néeg waajur ñu rend leen affaire bu yéeme c'est que da di andi euh, da kii criminels yi ci boobu dañ leen a war di téye jàpp leen c'est que bu defoon ku ray nit rek def ko un deux waratuñ la bàyyi sax yenn sécurité yu tuuti sécurité ak force la ñu war a defal teel a giir dund lii moo doon ci sama xalaat ci li ñuy xew ci nga xam ne moom la criminels yi di doxee ci jamono jii c'est que affaire bi mu xoolee ba xool dafa yomb nit ñi dañuy dem ba foog ne ñu ngi ci jàmm nga dégg benn criminel fa liwaat feneen ñëw ak i ñaaw téefam c'est que zine nag moom mm, grand kii la quoi c'est que roulam bi muy juré dafa jàllu baax lii muy def nii bi ñu juré dafa am c'est te li mu ne wax du wéeru ndax rek dañuy wax naan fii Tuubaa dañu fee rey ñaari xale yoo am ne leen fekk ñu te ñu rendi leen waa ci seen kaw lali waajur ñu tegul fenn ni moom war nañ ci mën a jóg waa bismillahi min sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim waa waa lu xew tv ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal yàlla yàlla yàggal leen fii yàggal seen taxawaay yéen ñëpp incha allah bi jaaxi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa di ñëw di ko ñaanal waa Sénégal di ko ñaanal waa Afrique di ko ñaanal àddina bi yëpp si barke yentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam man fi ma bëggoon wax rek mooy si série mœurs bi ñu ngi nuyu ñëpp ñëpp ñi nga xamante ne ñoo nekk di ko liggéey ñi nga xam ne ñoo nekk backstage ñi nga xamante ne ñoo koy joué aussi. ak euh, waa Sénégal yëpp di leen nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal yàlla ñëpp wax dëgg yàlla ñëpp di ñaanal ñëpp gudd fan ak wér ak wér la fekkee tal jëriñu mujj ñu doon li gën ci ñun ñi ngi wax waa mars ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ñun fii lañ nekk xaw na sori tuuti waaye dañ daan dem di jënd le film nigérien yi ndax ñun amuñu dara fii amuñu dara lu ñuy épanouir donc à part télé yi ngay seetaan télé yi nga xamante ne ñoo nekk ci dëkk bi su ko weesoo dootoo amante leneen loo def mais kii yi nekk Sénégal yëpp ay dina ma neex ak yi nekk Sénégal yëpp idol yëpp ak euh, Pod et Marichou yëpp vraiment waa Sénégal li ngeen li ngeen di def yàlla na ci yàlla taxaw dimbali leen may leen moyen bi ngeen koy defee te dimbali ñi nga xam te ñoo leen koy liggéey te yàlla may leen gudd fan ak wer ak wér la fekkee tal jëriñ mu jik leen dool li gën ci ñun ak euh, yoonu siraat kal mustaqiim incha allah wax dëgg yàlla ñu ngi kontaan trop waaye tamit ñu ngi ñaanal auditeurs yi parce que euh, am nañu tey ak dal seen wax tam rafet na ñu ngi leen di ñaanal ñoom tamit parce que dañ ciy participer te participation bi yaakaar naa tamit waa mars ñu ngi déglu bu baax parce que gis naa maa ngi déglu bu baax émission bi di déglu lu xew TV aussi di déglu seen émission yëpp vraiment maa ngi gis Sénégal daal kàcce gaalaama yàlla ñu yàlla may ñu continuer lu ñuy def te yàlla saxal ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que wax dëgg yàlla kontaan nañ li daan am bu njëkk ba amatul te ñoom li xew rek la ñu yàlla na yàlla defal leen tawféex defal ko waa Eh, lu xew TV defal ko waa Mars defal ko bépp nit bu taxaw Sénégal muy woykat yaa xam koo mënti doon yàlla defal leen jàmm ci seen liggéey mu jëm kanam te mu ànd ak yoonu siraat kal mustaqiim incha allah ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax ngeen xam ne ñu ngi leen di supporter aussi bu baax nekk leen ci jàmm bu baax waa Mars big up à vous kaw ci kanam incha allah. waaw waa Peshood TV waa maa ngi leen di nuyu di leen ziar di kontaan ci laay commentaire yi jot yàlla am na yu mu si déglu si YouTube kontaan naa ci lool waaw man nag sama wax ci kii la ñëw quoi Abdel parce que Abdel man dil boobu mu def ba bëgg ba bëgg a rey Jeanne walla ba bëgg ñu menacer Jeanne wala bëgg bëgg lu mu am ci ay dossiers yu mu am si Jeanne waa tax na ba Jean parce que man pour man Abdel Jean da ko daa toppoon Jean ndax ndax intérêt bi kii quoi ndax alal bu Jean am quoi voilà léegi finalement gis naa balaa Jean di dee sax nu mu nu mu doon nu mu doon xoolee rakkat yi waaw damaa xam ni Abdel léegi daa léegi maanaam léegi bëggatul Jean léegi maanaam rakkat yi da bëgg quoi pour man. xam ma ndax xaalis bi la xam ma daam daam cofeel ci ci ci rakk ji pour man la sax daam cofeel ci rakk ji après daam cofeel tamit ci xaalis bi quoi boobu xaalis bi donc moo ko intéressé quoi pour man sama jàngat. waaw maa leen di waat eh, yéen waa Lu Xew TV brigade des femmes eh, épisode trente cinq trente sixième bi. Eh, dama cee gis benn affaire boo xam na ni le est temps ñu jële ko ci Sénégal li tax nëpp nëppal bi affaire mbokk affaire yooyu noonu la fee war a jeex takk takk euh, ndax euh, xale bu jigéen bi bu demee ba faatu papam moo ko rey amuy lu leer nañ ndax li tax mu rey ko mooy li ko naqari depuis muy am fukki at ak ñaar la ko commencé def comme jabar di ko jabaroo euh, di ko jabaroo di ko jabaroo di ko jabaroo ba mu dem ba màgg ba xàmmee ci loolu adapté wu ci loolu dem bay commencé jaay boppam ci mbedd bi mhm. groupement ça va si loolee nekkee man moom li ma gis si épisode 38 bi mooy que ne Abdal li mu def saa ñaaw na trop parce que moom Zane da kaa bëgg jox ko lépp amul lu muy def di ko rey mais loolu yëpp lu mu si jot pour jot si alal bi mais loolu yaakaaruma mu sotti yaakaaruma mu jot si alal bi moom mun na peut-être mun na si jot mun na si bañ a jot tam waaw te siyaara ni muy def xale yu jigéen yi ñaaw na trop te Umu Kalsum tam moom ak kii Umu Kalsum moom ak wujjam bi Umu Kalsum moo nekk ci dëgg waaw parce kee lu mu ko nekk di lii lu mu ko meree mooy deewu Ayda bi que deewu ayda bi umu kalsum bu ayda li woon bu jaraatu woon mu def ko da kaa war a def waaw parce que xale bu am 12 a nga topp di ko tëddee daal def ko jabar ba mu toll noonu noonu loolu moom ñaaw na trop loolu moom dañ kaa war a génne si société bi dëgg-dëgg te merci jërëjëf loolu amoon pour commentaire si épisode 30 bu passé. Abel moom dafa ñàkk war ma rek ñàkk war ma rek la def foofu te jigéen bu la jëlee di la suturaal yoroo dara mu di la jàppale di la jàppale ba mu toll foofu waroo bëgg alalam rek tax di ko sàkk alalam la bëgg moom la bëgg a jël ci xale bi li jox xale bi moom la bëgg a récupérer ak alalam nekk fa dama yaakaar naa ne dafa bëgg aana moo tax mu def yi yëpp waaye fecc na kóllare ñàkk na war ma daal daal amul war ma rek daal. asalaamaaleykum eh, lu xew TV maa ngi leen bëgg maa leen charge yéen nga am jàmm. oui den wax ne film bi moom macha allah macha allah film bu la jaaral mais bii moom pour man benn moom waaw moom pour man benn moom waaw yi yëpp ku si nekk rôle bi la jox yaa ngi koy joué ni mu waree waaw man nag moom. ci côté jigéen ñi eh, nekk ay bandi noonu man ñoom ñoom ñoom moo gën a neex quoi waaw ah, seen tur yi sax moo tax mooy ñoom ñoom moo gën a neex film bi macha allah wax yàlla gën na maa tax ma bëgg film bi si sa man bëgg rôle yu mel jox la ko nga jéego si sa fi mu ko jàpp yoon moom mooy loolu daal waaw ma xam ni moom te xam nañ ñi tamit Sénégal ñoo xam ne film bi seetaan. film bi boo ko seetaan del xool li nga xam si ni moo am chance nga di ko jëriñu li nga xam si nekk amul chance après nga bàyyi ko mais bu Sénégal dañuy seetaan film comme si que lu am la wala lu naturel la ko lenn li ku ci nekk xam ne lenn li am na mais lenn li tamit ñu ci bañ a penché bu ëpp quoi ndax da nga gis sax ko jouer film ba pare à part ça nga romb ci mbedd sax ñu lay xool yenn bët yi te mooy loolu noonu ko waaw dañuy xam ne film la ñuy joué ay acteurs la te tamit seen métier mooy loolu waaw mais macha allah seen film bi jaar na yoon trop trop trop trop trop trop waaw ñaa ngi ci gis seen bopp trop a dëgg yàlla ñaamut doole ak ñi nga xam ne dañ lañ tooñ te xamuñ fu koy jooyee sans yi yéen ngi ñuy gunge yéen ngi ñu may xel ak yéen ak yéen kenn mënut a wax lépp daal. asalaamaaleykum na ngeen def man théâtre bi man lenn kese man moom ci xaw a jaaxal quoi. comme sa jigéen ñooñ di ci tux waaw parce que bu nee yeete ñoo war di yeete ci leneen mën nañ mën nañu indi beneen rôle bandi bu bokkut ak tux xam nga mën nañu indi beneen rôle bandi bu bokkut ak tux parce que tux léegi xam rek booy dañ koy seetaan yaakaar dëgg la di tux xam nga jigéen ñi waruñ cee newoon di tux tamit. ma amoon benn message tamit bu may jàllale peut-être euh, WhatsApp bi xaw am waxtu ñi ngi am audio yi normal loolu desit ma leer peut-être euh, dama ko yaakaar rek moom ma lay wax ne maanaam film bit bi tamit réussir na neex na jàll na nit ñi ñëpp ñu ngi koy seetaan di ñaan la li dal yeneen série yi mu bañ leen a dal waaw ngeen am ay saison saison wax dëgg yàlla ay saison saison maa ngi koy xaar ci yéen tam naa ci yaakaar waaw yeneen yeneen film yi fi jaar nag tout le temps ñoom tamit mooy loolu dañuy jouer dina neex mais fin la am. waaw ah, maanaam fin bi du baax ndax tout temps bi ñu koy joué dañuy dem ba comme ni ñu def nii di ray di ray di ray ray te dafa am ay acteurs de yoo xam ne tey bu ñuy teel di génn si film baaxul quoi waaw ah, daa yoo xam ne bu ñuy teel di génn si film nii baaxul waaw ah, comme si que daloon suma juumul euh, euh, ba ban filmat la euh, ñoom saa neex seen film bi laay fa tur bi wiri wiri waaw boo xoolee ñoom seen suñ bi li ko mu jot tax mu suux mooy ray ray yu bëri yi quoi waaw ray acteur de film yoo xam ne moom waruñu waruñu ñàkk ci film waruñu ñàkk ci film tout le temps ñoom ñooy dooleel gars yi ñoo lañ mottali am na ñoo xam ne ñooy tax ñoo lañ seetaan ñoom ba ñu leen rey bëri na mais ban laalee seen acteur bi mag muy seexu naan loolu indi na leen problème yu bëree bëri bëri bëri seen film mënut a dem waaw dinañ wax ñu fay ci côté boobu noonu. waaw ay jàmbaar ngeen ay liggéeykat lan mais film série yi nii nii nii tout le temps comme yii nii moom ay rey mën na ci am mais dañuy xool fi ñuy coxati bu baax a baax côté yi ñuy rey waaw période bii nii ku si mel ne Jules César kooku ku war dund la ku war a dund la ku war a yàggal film bi la ndax fi mu ne ñu bëree bëree bëri boo xoolee daloon seexu naa ci wiir wiir moom moo leen dal foofu noonu quoi waaw. boo xoolee fi ñu toll tey boo ko rëccoon rek moom moom ba lu ko MPS wala moom lu wala mu dee ci suñ bi rek moo loolu day bunt yu bëri yoo xam ni ma yaakaar rek laay waxee nag mën na fëtt mën na fëtt ndax daa am acteur film bi yoo xam ne nañ ci bàyyi nañ bàyyi wala bokk dañoo war a dee si fin film ba comme ni koy tubaab di faral defee waaw chef de bande dëgg moom day dee ci fin ba xeex cooki fin ba daal ci la war a dee mais bu teelee dee rek mooy loolu noonu mais série bi moom macha allah kontaan nañ ci ñi ci bëggee acteurs yi li seen rôle yi ñuy joué mën nañ ko kontaan barki Seydina Mohamed dama kontaan trop ma ko tardé chaque chaque jeudi wala dimanche duma ko tardé billaay su ma ko tardé bu dee dama lu ma impé sax ba ma ko fat fat damay dugg YouTube ma téléchargé ko billaay seen interview yi seen lépp man duma ma bàyyi dara lépp laay seetaan du ma sax seetaan film bi dong ñoom ku ci am. fu la invité wala seen kii yëpp dama koy seetaan dama leen ñu bëggee di leen safoo macha allah.